boo amoon seede boo may defal ci moom ban lay doon. waaw Babacar dañuy sant yàlla ak alhamdulilahi rabil di wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sunu papa Gaston yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko xaale ko àjjana yu kawee ci bàcc Seydina Mohamed waaw li may seede si moom bëri wax dëgg yàlla boo xoolee sama combat yi bëri moom moo ko tëgg hmm. waaw bëri tëgg na samay six combat xaw samay sept combat kon wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal suñu borom ñu yeureum ko jéggal ko njabat gi nga fi bayyi suñu borom tek ci loxo makan meng suñu borom may ko xolum ci bat Seydina Mohamed nit ku bax la won nit ku dëgg la woon nit ku am voleur la won kon dañ koy ñaan yalla mi nga xam mom yeureum yërmande jéggal yalla yeureum ko jéggal ci bat Seydina Mohamed mais bokk na ci jikko ñu koy tagge manam dëggu ak direct ñu may deug majeur parti bi yëpp loolu lañ wax te ñun ñu ëpp ñu wax ñom loolu lay loolu lay dëgg ku xam Gaston xam nga ne lu mu nara lu mu ragal ay wax rek tok fay joy te ay ay ay ay ay intérêt da koy défendre ba mu mët sëkk te loolu ku deugul mënoo ko kon dañ koy ñaan suñu borom mi nga xam mom yeureum yërmande may jéggal rek yàlla yërëm ko jéggal ko ci barke Seydina Muhammad kontaan ci yow kooku mooy Alioune Seye Cheikh Omar ba tey ñu continuer rek ci seede yi day